Was it? bañ sa jot pala la commencé may la fay. ay wàccal eh, ah, ci suuf. ci suuf. waaye loolu la yàkkat di bëri. Hmm. est-ce que ji ma wi. ku la nga takkati netatu ba saa ñu fi ñëwee nga jaay loo ñu wala nga takk loo ñu netatu. genre moo di netatu. on en a marre de ça. waaye yow foo jógee ak sa yi bi. moom nga see wax. yaa leen sol li ma sol. man am ngeen ay li ma sol. ma xanaa woo ngeen tànkam bu gudd bi. moom ngay seytaan. man li ma sol nii. waaye ku la doon rendee ci sa baat di seen netatu yi te bàyyi sama bande yaa ñu bande yaa ñu yow yamul bàyyi ko bàyyi ma ki la reen ki la reen kau laa kau laaj kan ay du la ko ka jàpp kii di jàpp lu ko de seen morom bu bàyyi la da ngeen réew nag ah bu ko koor gi jàppee duñu wax di ko mu ne lasas ni lasas jàppaatu say rob lan la da ngeen k nii xale yi li ngay dëj fii ñuy di jëw mu ne leen bàyyi jëw si weeru da dangaa yaakaar ne ma la ñàkk jom ko ko dee yow boo fi nga rek toog xale a ndaw yi rek ah ñi ñuy jaxase seen njaay di jëw ku ci weeru koor fi lay nekk di jëw man su may génn ku may desal ci njaay mi ah léegi da ngay bëgg daal ñuy toog di ah, di nga mujj su ko defee ñu jàpp yow ba may siyaas booba da ngay da ngay rëjul ba ma xaj yow man ba may ba may siyaas ci ci di nga yow ku ma yeb rek yow la merci balaa ñuy ñaanal mais mais ñun bu si football ñun dootoo jaay dootoo jaay mani xat mani dootoo jaay eh, eh mani eh yëmbal gii doo ko dem yëm équipe yëmbal doo ko dem xam nga looy baraay ndoog tiramisu waaye lii la la pa yow kañ la ban talent ban talent nga ñaanal ñu rek mais li nga wax ñëpp jëloon ko ah ñaan lañ soxla. ñaanal rek mooy yéen da ngeen a aayul. Ah. xanaa kii football ba weeru koor jot. eh eh, eh nokk la téye soxal. oui oui mun naa weeru dama lay ñuus de. dama lay ñuus la ta eh, eh, kii yëngu ni laaw. sa taa kottu boo ma ko déggee dinaa fay. nga xam ne nii tool yu bari la ñu def. Ah, yaa ngi yaa ngi toog. naka nga dund ji. naa se Père Malo. waaw maa ngi information eh, ah, yi gànnaar. Ah. waaye yow. eh waaye mbër. waaw man yow xanaa wooroo. xanaa wooroo. ah yow koy wooroo. yow entraînement nga demoon ni. waaw ñun dañuy yëngal de ñun tooguñu ay toog ay. ah. yow xaaral dañuy entraîné de. ah. yow xanaa dafa doon marché patax. marché yow tax na yow déggoo dara li marché patax mooy la. ah mooy li ngeen di def rek marché kanaara yeeg patax. dégg non non contact la tey. contact. waaw. contact. aya ah, wóoroo. yow yow munoo jaay sa jaay te dimbali ma yow. ayaw ah, munoo saa jaay sa jaay te dimbali. yow nag da nga doon contact. waaw contact yu tar. xanaa da nga am combat. waaw.

ah bu jubee ci tàgg bi na la modèle la. père bu ma waxuma loolu ndogu dina am ndogu waaw. léegi ku lay ndogu man. ci man nga nana ndogu. barke barke yàlla laa wax doo ndogu. ah yow yow mii di nii yow nga ma ma invité la ndogu yàlla tere ah yow yow dama laa mën a yor sa budget sa budget dama koo mën a yor. ah man sama ndogu méttiwul. déet yow yow looy ndogu. ñu tàppal laa ko nga ne. mu ne. ah. yow koy pareel rek. Hmm. pareel huit lan. per huit tapala. eh waay Samba. kii lii nee na mu lay lay ay waay waay waa waa kër gi waay Mari yow yow looy def. nii ci laa waxee bu ma yóbbu nag jaan bu tax ah, waa la yóbbu yow ma laaj première nga ne wut huit tapala ak ah, tapala nu mu di ji. loolu du loolu damay yee miskili yi ndogooguma de huit tapalapa yee miskili yi. huit tapalapa xanaa boo ko ndogoo pare kay di nga mën nak jóg nag dem entraîné ji rek. soo fonda bu ndaw soo fonda bu ndaw nii ma Ewai, ko ewai, bi. ewai, eh eewaay eewaay eh eh, waay waay joom mi naa joom jomeen lu ma joomal bu kii ku koy. pere may jaay nag de. ah danaa la jaay de yow yaa ngi dégg mbër la bi wax. Ah, dé déggoo ko kay. Ah, dégg naa ko. ala koor gee la dégg nga huit huit tapala ah mbër de yow moom moom jàmbaar huit tapala loolu rafet de miski leer la dama yee miski leer ak lan su amee soo fonda bu ndaw baax na guddi gi ceeb bi xam nga amee bool yooyu comme bool yooyu noonu mooy bool yi nga mën a tibal comme bool bi faa fekk boobu bëgg naa boobu loolu ba léegi ndogoo de waaw ndogoo ko kay man kay yow laay dig ndogoo nogoo ko. caga fii nag neexu Sénégal neexu ta waxee xam nga lan la. loolu loolu rave dama yee musculaire. ma ne ra rave musculaire rek rave si yam. sa ndogu bu ngoon jotee na nga ko ber amal ma kenn ndogu ay mbëri ay mbërëg yooyu noonu man li ngay li ngay ndogoo noonu mënu ma ko du ñoo doon déggee doo kon ñooy ndogoo doo. non bi bi bi bi bokk. mais déggoo yeewoo ma xadd nag loolu a. yow ku yow kan moo a dallu ji danga dalu ya, iya eh, ya, ya. oh, eh, eh, di ba ya bon taxu nak ma yé barke su juma boko yé kat do ne kat di do gënal ci bitim la nak ma ko ko tar wuri yow e ko da nga wor sax ko ko melni ro boko fonda bi la dama ki nga dama lay ñuus de dama lay ñuus de ni ci kër gi neexuma dara ni xol ko mi de kër go yewo jigen ci ki fu mu yewo jigen ci ko wi ko ko fàtte woon naan sa damaa woo kan ah boo ma mayee ma rek andi ndox mi rek yow andi ko rek ise yoon lool rek bu la yàlla 啊。